bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñi ngi nuyu bokk yi ñuy seetaan yëpp ak fu ñu mën a nekk ci àddina bi di leen nuyu ciituru turu daayira muxaddamatul xidma ci jiitul sëriñ Afiya Buso di soññ mboolem membre yi nga xam ne ñoo bokk ci daayira muxaddamatul xidma yi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ci liggéey bi nga xam ne sëriñ bi denk na leen ko muy lu aju ci jumaa ji ak armel yi ak taxawaay yi nga xam ne am na te daayira bi di ko def xam ngeen ne nag su weeru màggal jubee dafay rawati ci waajtaayu màggal gi moo xam entretien bi la ak ci biir màggal gi liggéey yi nga xam ne dañ koy def entretien bi nag dafa laaj ay taxawaay yu yaatu ci ay jumtuwaay ak ay matériel waaye rawatina tamit addiye muy muy xaalis yi nga xam ne dayre yi daanañ ko joxe loolu tamit ñu ngi leen ciy soññ ndax lépp loo xam ne mooy pile bu lakk wala ventilo wala ak lu mën a doon lépp dañ koy yeesalaat lépp luy poussière wala lënd biir ak biti kaw ak suuf yëpp dañ koy dañ koy def dañ koy yeesalaat dañuy fóot tapp yi dañuy dañuy dañuy dañuy yeesal mboolem jumaa ji daal biir gi ak bitti loolu ay waajtaay la suñ demee ba ci biir màggal gi tamit lu ëpp junniy nit danañ fi nekk ngir wëy di sàmm worma ji taqale góor ñi ak jigéen ñi defal rang yi eh, organiser julli gi ba nit ñi mën a ñëw def seeni siyaar ci jàmm dellu si jàmm loolu nag mu laaj budget bu mag a mag ak taxawaay yu rëy rëy rëy kon daayira Muxaddamatul Xidma ni mu ko baaxoo def ci ñi nga xam ne ñooy membre yi ci biir réew mi ñu ci bari danañ tar waaye ñu ngi soññ nag waa diaspora bi di ci beral ak soññe dëkk yi nga xam ne ñu ngi leen di bëgg a tudd ci Afrique fu mel ne Mali Côte d'Ivoire Gabon Guinée Conakry euh, Cameroun Ghana Togo Bénin Nigeria dëkk yooyu yëpp doon dëkk yoo xam ne am na ay membres yu fa nekk di saytu liggéeyu daayira Moukhaddamatoul ma ñu ngi leen di soññ bu dee Europe fu mel ne Espagne euh, ñu ngi leen di soññ itali France Belgique Allemagne Hollande Suède Turc Danemark Angleterre Scotland Portugal Norvège dëkk yooyu yëpp nekk ci Europe am na ay membres yu daayira Moukhaddamatoul Khidma ak ay cellules yu fa nekk ñu ngi leen di soññ ci ñu waajal màggal bi su ko defee mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk Europe ñi ngi jël soññe bi di ko teg ci loxol Serigne Assane Diop mi nga xam ne mooy coordonnateur diaspora bi foofu ngir mu soññ mbooleem cellules yi nga xam ne ñoo nekk Europe ñëpp di soññ tamit waa Siin ñoom it euh, am na liggéey yu bëri yoo xam ne def nañ ko fii ci jumaa ji ci wàllu matériel ñoom ñu ngi leen di soññ ci waajtaayu màggal gi di soññ tamit waa Arabie Saoudite ni ko noonu Amérique Amérique du Sud fu mel ne Brésil ak Argentine ñoom it ñu ngi leen di soññ bu baax a baax di soññ tamit waa Amérique muy fondation mu xaddimatul xidma bu amerique ñoom it ñu ngi leen di soññ ndax taxawaay bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy def ci liggéey bi di soññ tamit waa FONCAB mooy fondation Xaadim Rasul bu Amérique di soññ tamit waa saint wi waaye di rawatina soxna na soxna na ñu ngi koy soññ bu baax a baax ñi ñu tudd ñëpp nag fenn fu ci nekk dafa am ay coordonnateur ak ay cellules yoo xam ne ña nga fa kon képp koo xam ne membre nga wala nga doon nit ku yàgg dégg liggéey bi te bëgg cee barkeelu na nga jokkoo ak jëwrin yi nekk ko képp koo xam ne rek yaa ngi ci biir réew mi ak bitim réew it tey dégg liggéey yu daayira Moukhaddamatoul Khidma bëgg cee barkeelu mën nga koo jaarale ci numéro bii may bëgg a joxe ak numéro compte yi nga xam ne dana nekk ci écran bi numéro bi nag mooy 77 686 13 13 numéro bi numéro Wave la numéro Orange Money la kon képp koo xam ne am nga addiyee joo xam ne bëgg nga mu ñëw ci liggéey bi ci waajtaayu màggal gi ak ci biir màggal gi ngir taxawaay yi nga xam ne daayira bi dana koy def ci ci liggéey ci jumaa ji mën nga koo jaarale foofu kon ñu ngi soññ ñëpp ñaan sëriñ bi mu nangul ñu ci barkeb wax di hawaaiji lazina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu